jërë ngeen jëf éminence sëñ Chérif Fanta Madi Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Fadel ibnu Cheikhul Khadim Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal Amadou Ba Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine culturel, Excellences, chers invités à vos qualités et rangs, vous comprendrez aisément le plaisir immense que j'éprouve à me retrouver ici parmi ce beau monde. à l'occasion du vernissage de l'exposition de photos de notre vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Quelqu'un me disait un jour, je le cite, est-il encore besoin de monter une exposition de photos du Cheikh? Tellement celui-ci par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est en permanence présent en chacun et chacune d'entre nous. Plus exactement, dans le musée éternel du cœur de nombre de ses descendants, héritiers et de fidèles talibés. D'une part, mais aussi parce qu'il est au cœur du musée général de l'histoire de l'Afrique et du monde, et donc au-delà même de celle du Sénégal. Je répondrai tout simplement que ce n'est jamais un fait ordinaire de s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant sur la vie ou l'œuvre de Cheikh Hamadou Bamba Khadim Rassoul. Pourquoi je le dis Parce que Cheikh Ahmadou Bamba est à la fois mission et transmission. Il est à la fois mémoire et retour permanent vers le futur, comme dirait l'autre. C'est vous dire la nature multidimensionnelle du personnage. Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, véhicule les valeurs inaltérables d'une génération bénie des valeurs qui transcendent l'espace et le temps pour inspirer les générations futures dont certains repères sont de plus en plus impropres à la consommation collective. Cheikh Ahmadou Bamba, dans sa générosité légendaire, ne connaît pas le temps qui passe. Il accompagne et s'accommode de temps pour toujours mieux servir Dieu, subhanahu son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses concitoyens. Il est donc en soi le temps. Il est donc en soi le temps. Le temps, à travers les balises de la mémoire, continue de dérouler son tapis de lumière et de féconder les esprits et leur ouvrir les voies d'un futur radieux, si toutefois Ils savent décrypter les sens cachés à la fois de ces actes et de ces enseignements. Je vois donc cette exposition comme une étape importante, une de plus sur le chemin de la découverte jamais achevée et toujours renouvelée du Saint-Homme, d'où la réponse à la question posée à l'entame de mon propos Une réponse à l'évidence qui coule de source Oui, on aura toujours besoin d'exposer ce genre, toujours avoir des arrêts sur image, au propre comme au figuré, qui sont autant de sources d'inspiration et de catharsis salutaires. Soyez-en remerciés. Merci beaucoup au comité d'organisation. qui a eu salvatrice de récupérer ces images et de nous les amener au Sénégal mbokk yi bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant Serigne Touba di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe jëfe Touba sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ sëriñ Touba loolu dafa war a rythme ñu dund saa ne bu ñu noyee bu yéegee war nañu ni jërëjëfe sëriñ Touba bu noog wàccee war nañu ni jërëjëfe sëriñ Touba sant sëriñ Touba nag ni ko jërëjëf mooy sant yàlla ci yàlla sant Serigne Touba bu wér mooy sant yàlla ci ko xam yàlla ndax sëriñ tuuba kat mbiram yépp suñu borom la te jamono bii nëx na nëx boo xam ne bii bu ñu amul woon jàmbaar ju mel ni sëriñ Touba xawma fu ñu jëm kon sëriñ Chérif yow mi nga xam ni yaay Serigne bi ci sag mbaax rekk nga bëgg ma wax ndaxte boroom kàddu bu taxawee ku ñu dénk kàddu amatul kàddu ñun seeni taalibe lañu dañ leen di liggéeyal rek ñun ak mbooloom yépp ñun amuñu lu dul sëriñ tubaa bëgguñu leneen nit lu dul sëriñ Touba bëgguñu daraja bëgguñu dara sëriñ Touba rek lañu bëgg kon foo leen nekk rek da ngeen a baax rek di ñu jox ay cër waaye yéen a war a tàmbali yéen a war a yegale sa mag ju baax jooju nga xam ni moo la fi yebal muy Cheikh Mouhamadul Mountakha di sëriñ Touba ñoo ngi ñaan fu ñu toll yàlla yàggal ko fi te wéral ko te ñu yàgg ànd ak moom bés bi ñor na ko lool monsieur le premier ministre ñoo ngi lay jox nuyoom ak tatagalam ak tamit ay encouragement di ko teg ci sa loxo ba nga teg ko ci sa kilifa le président Macky suñu doom suñu mbokk taalibe nga mu wax na ko fii wax na tamit na mu demee lépp ba nga xamee ni nataal yi feeñ na ca 2020 ñu nekk ci ci ndimalu yàlla ak ay taalibe yu baax ma ciy profité di nuyu suma sëriñ bële di sama mbokk taalibe ñu koy wax maître Moussa Mbacké ndax man mii maa ko woo ñu waxante ci enchères yi ñu juboo ci ba ni bu ñu fa nekk di xëccoo nañ wut comité boo xam ni sëñ xaadim mi moo fa nekkoon ak ñi mu àndal ñu fexe ba doon ab dànk mu bañ a am concurrence ñu mën a jënd photo yi mu yëkkati koppar yu bari joxe ci kon war nañ ko sant gërëm ko waaye boppam la defal ndaxte Serigne Cheikh lañ ko mooy wéy juróom sëñ Modou Moustapha Cheikhul Khadim am geneen wet di sëtu maam Cheikh Ibra Fall ndax mooy maamu ndeyam kon ñoo ngi koy gërëm di gërëm ñi ci doon dara ñépp <clears throat> bi nga xamee ni loolu am na murit benn lañu bu kenn amee ndam ñépp am nañu ndam kon nañu fexe ba ñun ñépp ñu jàppalante bëggante ndax kenn lañu am muy sëriñ Touba ñu ànd servir ko sëriñ bi nag lii mu wax ni c'est la solution moo am bu wér sëriñ Touba c'est la vraie solution ndaxte ki ñu jàppoon ni mooy tubaab bi te yoroon lépp man lépp ñu ji am ay théorie muy le monde occidental ñu ciy doxale àddina bi théorie théorie yépp dem nañu ba ku ci ne xam nañ ni fa ñu mën a yegg yegg nañ fa moom nag mu indil ñu model de société boo xam ne bi jëlale naa réew mi waaye bu ci àddina ngoyee àddina jàkk alaxira jàkk kon kooku mooy solution lépp luñ koy tudd mu doon ci dara wala mu man mas laal wala mu maskoo tudd ni ñi taalam yi mel rek lay mel kon kooku war nañu xam ni mooy solution tubaab bi nga xam ni tubaab la te ñu jàppoon ni ma nga ci réewi tubaab yi ay maamam newoon fa dama dégg ñuy wax ni sax doomu architecte ba la déedéet xamu ko dafa jënd photo yi bi mu ko jëndee collectionneur lañu dañ koy jaay mu xool ko muy ab abba mu bëgg ci juróomi euro cinq euro cinq euro war naa doon mille huit cent francs CFA ab astaghfirullah euro trois mille et quelques francs CFA trois mille mille trois cent mu am juróomi photo mu bëgg ci mu ni da loolu la koy jaay mu génn ñu koy woo ba mu tiit ni lii ma dajeel lu mu doon ñu dem ba muy jar ay millions yàlla moo ñu dimbali waaye bu bëggee woon walla mu am ak xereñ bu ci bëggoon milliards ñu jënd ko bu ci bëggoon milliard ñu jënd ko te loolu originaux yi la de originalu photo yi dañ ko imprime sëriñ bi signéti ñuy jaay benn photo million am na benn photo ku ci man dix millions am na ñu ci man vingt millions waaw original bi kon lu mu doon jar man de jaral na ma sama jëmm loolu mooy wone ni sëriñ Touba. ndimbal bu yàlla indi ci àddina la bala maa woo réew yi ci àddina senegaal dañoo am loo xam ni xamuñu ko li ñu am kenn amu ko sa wéyjur wu baaxoo moo ko waxoon sëñ Serigne Fatma Madi Serigne Fallou mag la te xam na sëriñ Touba moo ni ku ñu am kenn amu ko kon bon damay bañ a guddal dama ko fay yemale waaye may woo sama mbokk taalibe yi di leen wax ni kër gu ñuy liggéeyal sëriñ bi jaadu na ñun ñoo ko war a liggéey bu dul woon sax ay nitaal bu woon na ku nekk def ñaari junni fukki junni ku ci nekk loo am war nga ko cee def ñu wut nag ay nitaal muy ab barkeelu tey jii bu ñu néewoon def nañ ci million million yi kër goo dem war nga ko faa fekk ma ciy woo sama bopp di leen woo te di leen xamal ni ndégalu cheikh Mouhamadul Muntaqa la bërki biig moo ma woowal boppam ni ma nanga fa dem àndak ñoom te nga taxawu leen murit na ndigal rekk lay joxe kon maa ngi leen ciy woo nitaal yaa ngoog ku ne am na loo man ku ne ku amul million man nga fukki junni man nga ñaari junni man nga juróomi téeméer mais pour conclure ñoo ngi gërëm bu baax a baax lu premier ministre mm. ni ko ab lay Mbaye wax pexe rek mm. wax na dëgg ñun murit lañu kenn lañu bëgg kenn lañuy wut muy Serigne tubaab nanga fexe ba am ko boo ko amee rek di nga ñu am asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu